am ndam incha allah. macha allah merci beaucoup. jërëjëf grand mais mais grand yow baal nañ la marché bi. Ah, ah mooy sama ndey. ah muy ne gis naa ko. Pape Sidi. oui nuyu nañ la. <laughs> Dakar Buzz ay problème ngeen may indi la ci. non dañu la indi benn problème. Ah, waaw naka waar. kaay nii balaa kaay nii wéri voilà gis la tey euh, ci li nga xamante ne moo di marche marche pacifique bi nga xamante ne euh, tey jii taskatu xibaar yi woote nañu. waaw taskatu xibaar yi dañu woote. nga nekk nekk porteur de voix no jii. non je suis journaliste en fait ce que les gens ne savent pas moi c'est que je suis journaliste. moi je suis issu de l'ISIC école Abdou Latif Coulibaly laa jàngee lii Pape Alé Niang di def nii. Euh, 2009 man laa am sama diplôme journaliste. donc je suis venu pour soutenir un collègue mais après euh, après avoir été un collègue c'est un ami c'est un frère c'est un grand qui donne beaucoup qui me donne beaucoup de conseils et puis nit ku am ngor la Pape Alé Niang bu fekkoon nit ku goree di la wala kuy dunde journalisme régime bu far mu ànd ak yow ndax euh, Macky Sall bañ ko indilee jafe-jafe ci état bu Sénégal en 2011 Pape Alé Niang rek la doon gis moo ko invité dan ko jàppale ci ay plateau mu feeñ aujourd'hui Pape Alé Niang est en prison pourquoi dafa joxe information lan mooy liggéeyu Pape Alé joxe information c'est ça qui est drôle aujourd'hui Pape Alé lan mooy liggéeyam joxe xibaar lan moo tax ñu jàpp ko dafa joxe xibaar am na ku waxoon Aliou Sall 6000 milliards BBC la nekk kenn jàpp am na ku wax ministre de l'environnement 45 milliards mu ngi ci Sénégal gii kenn jàpp Pape Alé Niang joxe information boo xam ne mu ngi ci internet bi ñu jàpp ko ne secret défense yi c'est que bu ñu seetaanee lii waxuñu àdduna bi hé xool leen Sénégal ñu ngay tere journaliste ñu def seen liggéey dañ naan musiba naaru laay mu ngay waaj a juddu recul démocratique la ils vont ma dire non Pape Alé Niang c'est pas un journaliste c'est un, euh, un activiste qui se cache c'était c'était c'était exactement le même Pape Alé en 2011 le même Pape Alé en 2011 le même Pape Alé aujourd'hui il y a des gens qui sont d'accord avec l'État qui ne sont pas d'accord avec l'État et qui sont qui, qui en train de donner des informations côté bii kontaan ji bii côté duñ ci kontaan Madiambal Diagne lan la journaliste la bu ñu ko jàppoon tey man maay njëkk a nekk ci mbedd bi. tey jii lan ngay dénk autorité judiciaire yi nga xamante ne jamono yi ñu ngi fii ci diwaanu Sénégal. dañ ko bàyyi mu dellu ci njabootam Pape Alé deful dara nit ku baax la nit ku gore la nit ku am éthique nit ku am déontologie la président Macky Sall bu fàttalikoo 2011 gestoo Pape Alé rek léegi si ginnaaw. ba doole la président Macky ba doole la. <laughs> bàyyi président kilifa la kilifa la. bu deful yëfu kilifa. ñu ne la ba doole nga. waaw suñu kilifa la kilifa la. président suñu kilifa la mais kilifa bu ne yow sa kilifa ku lay fay de TV la wax ba doole mais ci suuf nga ba doole la. Euh, Pape Sidi ku nekk xam na ni Sénégal dem na coupe du monde euh, mu ñu bari ci euh, ñi nga xamante ne euh, jamono ji dañu leen déclaré forfait ku ci mel ni Sadio Mané tey ci naka nga gisee équipe bi sans Sadio Mané. Sadio maane c'est le deuxième ballon d'or mondial ah c'est que Sadio Mané dàq na ragal ci équipe. dallu saajo maane rek day tax équipe bi ñu jàkkaar loolu tiit mais man xam naa moo ma gën a métti mooy Saliou Ciss demul couloir gauche Sadio Mané demul couloir gauche. va falloir que El Tactico vraiment mu jàppale ñu et puis joueurs yi xam naa ne ay jàmbaar lañu ah, ay ay góor ñoo si nekk ay nit ñu bëgg lu baax ay nit ñu ñu am patriotisme donc ils vont jouer avec le cœur ils vont jouer pour Sadio Mané mais ils vont jouer pour Sénégal mais balaa dara di ils vont jouer pour briller au mondial parce que nekk champion d'Afrique Saliou Ciss mën na am club wala yow boo demee sa club ñu lay toogloo banc loolu quand tu prouves encore une fois que tu as été rentable au niveau du mondial tu vas tu vas je je leur souhaite le meilleur mais je sais qu'ils vont faire le taf. D'accord. Bon conseil que le sélectionneur euh, Est-ce que moi je pourrais lui donner un conseil Moi je parle en tant que fan de sport, hein. je ne suis pas un très grand professionnel. À part... Est-ce que vous avez juste un conseil loolu ay grand gomis ñoo koy mën wala ay Adama Kandé affaire man daal xam na laa koy wax Aliou fais nous rêver quoi on est en quart au moins amène nous jusqu'en demi quoi ça je pense que waaw mën na nekk mën na nekk mën a nekk mën a nekk je je le je le crois dur comme fer je crois dur comme fer lu mu lay wax nga ma koy wax booru la. <laughs> voilà a gis na ñu tuddoon la fan yi ci benn euh, scandale boo xamante ne dafa amoon Pape Sidi euh, ci li nga ah, xamante sama sëriñ mu ne bul ci waxati. te murit ndigal la. barki borom Tuubaa du nga jëfee ndigal. waaw sama sëriñ nee na ma bu ma la déggati nga wax ci loolu ma ne ko Mbàkke dootul am.